delloo noonu yóbbeeg ziar bi. jërëjëf oustaz ay wàcc yóbbalu bés bi. waaw xaaj Babacar yóbbal bi tey jii dama koy joxe mu jëm ci benn saar alquran bu am njariñ lool mais njariñ bi ma ciy joxe tey ji mooy koo xam ne këram diggante jëkkër ja ak jabar ja déggoo ba dafa des wala doom ji tegu ci yoon wu yàlla gërëmul walla mu am koo xamante ne bii seen soppe la te yàlla dogal mu foñ leen wan leen ginnaaw gisanteetuñu ñu bëgg loolu yàqu ci biir famille boobu ma tudd diggante jëkkër ak jabar doom yeeg wëllëri yi yoolu yàqu-yàqu boobu ñu bëgg mu jagaat dañu jël suuratu wadduha wa leyli iza sajja bis bu nekk mu jàng ko ñaar fukki yoon ak juróom-ñaar ñaar fukki yoon ak juróom-ñaar wadduha wa leyli iza rabbuka wa maa qalla وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى آية بما يبقى وخني ممنا بفا يكسي دكو يوخ ووجدك ضالا فهدا wajadaka daalan fahada da koy wax juróom-ñaar yoon eggali wa duhaa bi lii mu texale ko ñaar fukki yoon ak juróom-ñaar ci saar bi di ko def di ko defaat di ko def di ko defaat léegi mu gis changement ci biir këram Xaaji Babacar. Oustaz